Migui Maram Ndiaye maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay di également képp koo xam ne jamono jile yaa ngi teewlu Rewmi FM. voilà Migui Maram Ndiaye nga nekk président bu convention des jeunes reporters du Sénégal membre de la coordination des associations de presse tey ji 3 euh, mai ci la ñuy màggal bés bu ñu jagleel liberté de la presse ci àdduna bi euh, naka nga gisee bës bi ak tamit importance bi mu am pour taskatu xabaar yi. waaw comme ni nga ko waxee rek xam nga àdduna wërngël képp ñoom ñooy màggal bi la bés parce que sooy xool euh, daanaka euh, at bi bës bu nekk dina am euh, benn bés boo xam xam ni dañu koy jagleel benn secteur wala ñu am lu ñu ko jagleel ñun nag ñu yëngat si wàllum tasir xibaar lii mooy suñu suñu bëccëg bëccëg bi nga xam ne dana tax ñu mën a xayma daanaka tolluwaayu liberté d'expression wala tolluwaayu liberté de la presse de manière globale loolu nag moom mooy wane solo su bis bi parce que ginnaaw bu ñu liggéeyee euh, bés bu yàlla sàkk baax na yenn saay ñu toog def xayma xam ba xam ñun li nga xam ni moom moo am solo ci démocratie muy liberté d'expression lan mooy toll tolluwaay bi suñu réew lan mooy tolluwaay bi ci àdduna wërngël képp lu tax moo am solo mooy sooy xool démocratie amul benn démocratie bu nga xam ni mun na dox mun na avancer te liberté de de de la presse kenn garantiru ko tey sooy xool këyit yi nga xam ne suñu réew yëpp dañ koy xaatim su le plan international soo duggee si biir duñ fa fekk liberté d'expression nga ñëwaat Sénégal instruments yi nga xam ni xaatim nañ ko daal di koy euh, ratifié daal di koy voté si assemblée national yooyu tamit si biir dañ fay gis liberté d'expression dañ ko fa garantir bu gën a rey suñu suñuy euh, këyit yi ñu tënk muy constitution bi soo duggee liberté d'expression dañ koy garantir donc baax na yenn saa yi toog def xayma euh, si bëccëg yu pour xam fan lañ ci toll ak lan moo war a nekk suñu kanam ba nga xam ni boobu la liberté d'expression dañ koy gën a aar ba nga xam ne daal benn jafe-jafe. Mhm. Euh, surtout ci organisation bi ngeen bokk euh, naka euh, ngeen fas yéene màggal bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel liberté de la presse. alors ñu koy màggalee nag ñun xam nga dafa nekk ci euh, benn contexte bu particulier parce que Sénégal jamono jile tolluwaay bi mën nañu wax ni euh, ñu bëri tiit nañ ci ci tiitaand goog yi tamit am na yenn ci taskat xibaar yi nga xam ne dañ leen di faral di teg loxo te suñu xoolee ñu ngi fi tegum loxo ñëpp ñu sëpp yenn saa yi dañ leen di wax secret défense wala ñu wax secret national national euh, nationale loola waral ñun kat ñu ni kaa ñu def ak panel panel boo xam ne dañuy toog waxtaan xool ñaar yooyu le muy sécurité nationale ak liberté d'expression euh, naka la ñu mën a def kenn ku nekk bañ a sa frontière morom maanaam ñun ñu mën a def suñu liggéey comme nu ñu ko santé sans pour autant indil gàllankoor sécurité nationale sécurité nationale bi également ñu wax ñu fan la yem ba nga xam ni ñun dinañ mën a def suñu liggéey nu ñu ko bëggee ci panel boobu nag dañ ci woo ñoo xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàll wi Matar Sylla mi nga xam ni nekkoon na fi njiital RTS at àdduna wërngal képp dem na si réew yu bëri ñu dénk ko liggéey boobu mu war a ñëw weccante xalaat ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di acteurs des médias yi mais également colonel Wardini colonel Wardini nekkoon na fi CRPA donc jaar na armée sécurité nationale notion boobu le moom day ñëw waxtaan ceeg ñun Sele Seck itam xam-xamam màcc droit des médias day ñëw ngir wax ñu itam lan la ñu yoon may si wàllu liggéey bi Mignel Bara Sèye nekkoon te itam naataango suñu naataango CRTS war a modérer boobu le mais laataa loolu dañuy def maanaam euh, panel bi 16 heures la 15 heures pile dañuy génn ñun ñëpp taxaw si bunt maison de la presse pour sàkku si kilifa yi ñu bàyyi suñu naataango yi nga xam ne dañu leen a teg loxo parce que nag xaar bi mi ngi bëgg a yàgg ñun teg nañ ay jéego yu bëree bëri ngir ñu bàyyi leen rawatina sax pa kaa bu gën a yàgg moom mooy kaawu Pape Ndiaye euh, daanaka mat na ñaari weer a ngi ñu daal koy teg loxo c'est pas parce que nag euh, maanaam tap dafa toog di seetaan mosuñoo toog seetaan Pape Ndiaye bés bu ñu ko jàppee ba tey jëlee ñu ngi suñuy lot dafa fekk ni ñun dañoo jàppoon ni euh, lépp loo gis ci Sénégal maanaam ci waxtaan lay mujjee moo tax ñun ñu préféré woon dem directement gis ñi nga xam ni ñoom la mbir mu soxal pour waxtaan ak moom pour ñu bàyyi Pape Ndiaye ni mu gën a gaawee ñu yor wàllu yoon dem nañ ci ñoom euh, jokkoo nañ ñu tamit ñi nga xam ñoom ñoo nekk kilifay réew mi pour que situation boobu noonu daal ci indi solution malheureusement dañu doon wax ni kat ni yoon jamono jile dafa am ay grève mais su grève bi jeexee au moins li nga xam ne droit am la dinañ ko ko def mooy ñu déglu ko suñ ko déglu woon sax dina tax ay avocat daal di déglu li nga xam moom mooy demande de liberté provisoire mais loolu yëpp ba tey jile amu si Pape Ndiaye mi ngi bëgg a yàgg si kaso bi te ñiy màggal bu ni mel ñetti fan weeru may ak tasir xibaar di nekk ci kaso bi mu doon loo xam ne dañ koy ñaawlu war a ñuy woo tasir xibaar yi yëpp nag parce que uude souvent nu mu lay gisee noonu la lay ëwalee ñun dañoo gis ni solidarité dafay manqué souvent ñu métier moo tax peut yenn jafe-jafe yi ñu koy am mais su fekkee ni comme yu ko neen secteurs yi doon defee ñun mun nañ ko mais ñu ko noonu mais ñun ñëpp ñoo war a mobiliser wu taxaw wax sàkku si kilifa yi naam nag démbal Bamba Kassé ba mu demee di déposer cahier de doléance wax na ko si kanamu jiitu réew bi mais liñ si bëgg mooy ñu matérialiser ko parce que ñun xalaatuñu woon ni dinañ egg 3 mais bi Pape Ndiaye di nekk si kaso bi ba keneen di ko fa fekkaat donc loolu aussi moom moo tax suba ñun dañuy fas yéene màggal bës boobu ginnaaw nag ba ñu participer sax si suba si ab activité boobu nga xam ni waa euh, UNESCO ñoo koy def dinañ waxtaanee itam tolluwaay liberté d'expression kon bëccëg la bu nga xam ni dinañ ci def au moins ñett activité yoo xam ni lu ñu bëgg mooy ñu def xayma bi lu ñu bëgg également mooy ñu am benn presse boo xam ni kenn su ñun du nekk ci ci kaso bi peut-être également am na loo xam ni moo ñu war ñu taskat xibaar mooy suñu liggéey war nañ koy gën a ñoñal ba nga xam ni yenn jafe-jafe également mën nañ ci bañ a fekk parce que liggéey bi également dañ ci dañ ko war a liggéey ànd ak règle yi nga xam ne moom moo ñu tënk donc mbir mi il faut ñu xoolaat ko ànd ak responsabilité parce que tolluwaayu réew mi ñun dañ ci am part de responsabilité kenn mënul wax démocratie te doo tudd tasut xibaar kenn mënul wax tamit jàmm réew te duñ si tudd am na réew yoo nga xam ni ak na tasut xibaar yee ko tàll ñun nag ñu ngi sant yàlla on a sooy xool de manière globale ay tasut xibaar yi nga xam dañoo responsable mais waruñu toog rek ni voilà am na dañoo war a toog di seetaan ñun ñëpp la gën a war ñu gën a vigilant si liggéey bi ba nga xam ni lépp lu ñuy wax war nañ ko sedd amul nag lu nga xam ne par parloo la mais ñu segg ko xam lan moo baax ci jàmm réew mi ñu koy wax te moytu du yee fitna parce que loolu du suñu rôle. jiitu convention des jeunes reporters du Sénégal ñu gis ni fii Sénégal euh, souvent euh, reporters yi bu ñu nekkee ci terrain bi ci manifestation yi euh, takku der yi dañuy dal seen kaw lu baree bari. Hmm. Sénégal léegi jafe na nga gis ab manifestation bu am te du ñu jàpp benn taskat xibaar wala duñu ko dóor grenade wala moo am ci gaañu gaañu en tout cas manifestation yi mujj yëpp gis nañ ne am na kuñ ci évacué mooy caméra woman bi nga xam ne daanaka def na une semaine à l'hôpital ba dañ kaa mujjee opéré donc mu doon li nga xam ne nag ñun ëlëm nañu parce que tout simplement ñun li ñuy def constitution bi moo ko garantir takk der yi di suñuy naataango di suñuy frère ñoom itam li ñuy def euh, constitution bi moo ko garantir ñun dans les normes dañoo war a liggéey sur le terrain te du am benn jafe-jafe malheureusement tel n'est pas le cas ci c'est rare man mii di wax a yow sax mës nañ ma jàpp ci manifestation alors que maa ngi ak sama carte maa ngi ak sama micro maa Euh, noonu lañ ma jàppee sans raison fan yi ñu génn itam gis nañu dañuy dóor grenade jëmale ko ci tas ko xibaar yi nga xam ni sol nañ juré parce que ñun toog ñu rek di seetaan dañoo dem uti jël suñu kopparu bopp dem defar ay juré mille yoo xam ne dañ ko distribuer les reporters distribuer leen ko pour ñu mun leen identifier kese ba nga xam ne jafe-jafe du am mais def nañ ko ba ñuy waajal élection député yi mais gis nañ ba tey mbir mu saafara amu si woote nañ heure bii daaw ci ab euh, jamonoy koor la woon sesti ak euh, amical bi ñu toog invité même le sous-préfet bu Ndakaaru moom mi nga xam day wàcc sur le terrain c'était pour ñu xayma xam lan mooy jafe-jafe bi quoi souvent ñi am jafe-jafe ñun ak taqdari ñu waxtaanee ko loolu itam taxul ba tey jafe-jafe bi day am bind nañ sax ab bataaxal ak programme bi nga xam ne ñun ñoo ko bind pour benn atelier boo xam ne dañ koy seq ak taqdar yi ak ñun taskat xibaar yi ñu toog waxtaan kenn ku nekk wax lay mooy sa mission lii mooy sa mission ñu xam kenn ku nekk fan la war a yem mais loolu également ñu ngi sàkku si jëwriñ bi nga xam ne moom mooy wàllu intérieur mu gunge si parce que ñun convention lu ñu tax a jóg mooy tàggat kese ñun duñu syndicat syndicat bi mooy SYNPICS tàggat moo ñu tax a jóg dañoo bëgg une test de qualité dañoo bëgg reporter yi bañu am benn jafe-jafe loola waral loolu ñu koy def saa su ne moo tax ubbil nañ suñuy bunt bépp kuréel goo xam ne xalaat nga ni li ngay liggéey euh, dina doon la xam-xam taskat xibaar bi ñun nañ pour liggéey ak donc loolu si la ñu nekk nii ñu ngi waajal benn séminaire nii semaine bi ñu ngi waajal gala suñ si génnee itam dañuy defaat yeneen atelier waajal sax élection yi nga xam moom la ñu dëgmal te lii ma ngay waxtaanee nii sax. Mhm. Euh, mo weer wi ñu dëgmal ñun ak Nations Unies dañu ci def benn atelier pour xool reporter bi moom ban comportement la war amee en temps de conflit sur le terrain donc ñun ñu ngi def lu ñu war. maintenant la sa des nag mooy la balle est dans le des autorités ñoom ñoo ñu war gunge takk der yi également seen formation ñu leen ci ñu ñuy bàyyi xel bu baax a baax parce que encore une fois ñun sur le terrain seen ginnaaw lañ war ne ñoom ñoo ñu war a aar donc mënuñoo concevoir ñuy jël grenade duñu ko sànni amul benn explication ba nga xam ni war naa mun a am ci loolu donc war nañu mun a toog waxtaan bi ci euh, beneen laaj bu am solo di euh, même bu fekkente ni code de la presse bi euh, voté nañ ko am na yu bari yoo xam ni war nañ ko appliquer amagul lan moo indi blocage boobu mi ngi maram. waaw xam nga Sénégal moom mun nañoo voté souvent ay lois. mais su desee lu dul application mu ay doon ay jafe-jafe code de la presse xeex nañ ko pendant fukki at ak lu ëpp ñu daal di koy voté euh, njiitu réew Macky Sall ñu daal di koy voté ñu voté ko mais dafa am yenn disposition yi nga xam ne moo ko war a gunge si yenn pàcc yi parce que ñu ngi appliqué yenn yi mais am na yeneen yu nga xam ne dafa des pour loolu nag dañ ci interpeller directement le ministre de la communication pour mu def le suivi nécessaire mais également le président de la république mu fexe euh, lu jëm si code de daal di koy matale parce que am na benn boo nga xam ne ñu ngi koy appliqué muy carte nationale de presse mais carte nationale de presse doyul pour ñu assainir notre milieu il faut que yeneen disposition yëpp ñëw parce que même entreprise bi ni ñuy amee xaalis loolu war nañ ko mun a waxtaanee loolu yëpp nag code bi moo ñu ci a dimbali mais gis nañ ni boobu ba tey amul mais ñun au niveau de la CAP ñu ngi anticiper parce que am na ay assises des yi nga xam ne ñu ngi koy waajal assises yooyu moo ñuy may ñu def xayma xayma code de la presse xayma xayma xayma xayma xayma xool ba nga xam ni jafe-jafe yëpp dinañ ko teg ci table bi pendant ñetti weer woo ci acteur yëpp muy acteur des médias acteur politique kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp ay ñëw ci assises yooyu pendant ñetti weer ñu liggéey def xayma xool naka la ñu mën a def ba suñu métier ñu am benn presse de qualité loolu nag ay bés yu ñu génn dinañu ko door fii ci biir Sénégal ngir def évaluation bi ñun convention bi nga xam moom moo ëmb ndaw ñi dañu dem sur le terrain déglu ci correspondant yi ñëw si rédaction yi déglu si reporters yi naam sax tàmbali nañu ab étude suñu paree nag tëxañ lépp si ab document moom la ñuy yóbbu si assises yooyu la daal di koy présenter ñi nga xam ne rek ñoom ñooy acteurs yi pour itam ñu tenir en compte les préoccupations des reporters parce que reporters yi nga xam ne ñoom ñooy reporters yi ndaw yi ñoo gën a sonn si métier bi lépp si liggéey bi ñoo koy def mais ñu ëpp si ñoom amuñu salaire ñu si am salaire kenn du leen suñu feebaree mënuñoo faju wala kenn du leen euh, i IPRES donc ñooñu dañu dem ba màggat après am ay jafe-jafe loolu nag ñun naam nag euh, suñu mission formation la waaye ñu ngi koy bàyyi xel parce que tamit balaa nga naan naam ne fa te yooyu itam sàqu nañ ci seen picc ñun kuréel yëpp dinañ ci taxaw pour xool naka la ñuy def ba indi si saafara. laaj bu mujj mi ngi Maram Ndiaye euh, est que mën nañu wax ni euh, liberté de presse am na Sénégal. alors suñu koy wax dañu koy xayma si ñaari pàcc. Mhm. liberté de la presse suñuy wax mën nañu wax ni Sénégal garantir nañ liberté d'expression liberté de la presse parce que tout simplement lu tax ma koy wax ci benn pàcc bi mooy tey ku bëgg a ibbi sa télévision ibbi télévision Sénégal su fekkee respecte nga les mesures ku bëgg a ibbi rajo ibbi rajo ku bëgg ibbi site am nañ plus de trois cent sites fi nekk ku bëgg am quotidien bés bu yàlla sax léegi yéen ñuy def revue de presse bés bu yàlla sax ngeen gis quotidien bu bees seen rédaction yi bés bu yàlla sax loolu mooy firndeel ni Sénégal réew la boo xam ni garantir nañu liberté d'expression waaye sa wet ga la ñu tiital kay mooy suñu naataangoo yi nga xam ni dañuy gën di dem ñuy gën di am jafe-jafe Sénégal mooy réew moo xam ne su fekkee ne yow da ngaa euh, joxe benn position position bi A li nga wax nag waa A ñu féete A neex na leen ñoom dañuy jàpp ni yow yaa gën ci taskat xibaar yi yow yaa leen mën hmm. mais waa bee ñoom dañuy jàpp ni yow da ngaa bon bañ sax ba di la attaqué ci réseaux sociaux yi wala sax fekk la fi ngay liggéeyee ñu daat lay song gis nañ di groupe Futurs Médias benn jamono song nañ leen fi gis nañ fi ay également yi nga xam ne coupé nañ leen hmm. fekkee ne da ngaa wax loo xam ne itam dafa neex euh, kujje gi euh, yenn saa yu nguur gi également faute boo mënta def rek duñ la ko da nga ko amoon bu doon loo xam ne nag warul si ñun réew donc nañ xam ne ñun notre rôle n'est pas d'être pour ou contre nañ ñu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu ba nga xam ñoom dañ ñoo war a aar parce que kenn mënul tudd démocratie kenn mënul tudd jàmm réew ba duñu say génne démocratie mënul am sans la presse jàmm mënul am sans la presse pour lool nag il faut que acteurs yi nga xam ne ñoo ko seq ñu daal ñu jox cër bu ñu nga xam ne ñun lañ ko moom cër boobu tamit ñu ñoo war a jëlal suñu bopp mooy ñu bu mat sëkk nga xam ne dafa soxal presse yi ñuy jógandoo xàccandoo dóorandoo mooy tax ñu daal di génn ci moom la ñu nekkee parce que teg ay jéego lu des moo ñu gunge ko ba nga xam ne dañ koy matériel. voilà Miguy Maram Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax a baax. maa ngi lay jaajëfal baax a baax di jaajëfal tamit euh, tous les auditeurs de Rewmi FM. voilà Miguy Maram Ndiaye may fàttali yow yaay euh, président bu convention des jeunes reporters du Sénégal nekk itam membre ci euh, la coordination des associations de presse merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup